jërë ngeen jëf mbokki internet yu Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu lu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu rek euh, dañ koy doore nag ak xibaar bu tiis muy génnub adduna ki nga xamante ne moom moo di euh, njaay euh, ñu gën ko xam sax ci turam dëgg di Abdoulaye Ndiaye nekkoon foofa ca télévision Futurs Médias moom nag information bi ki ko joxe mooy Pape Cheikh Diallo gannaaw ba muy amal rek émission Midi foofa ca télévision Futurs Médias ci la daal di joxe rek information bi ni mel kon nag moom Abdoulaye Ndiaye ko xam ci Ndiaye Ndiaye daal dinay génn adduna doon ànd sax ak ki nga xamante ne moom moo di Kouthia Show ñu gënoon ko fa ràññee sax bokk na ci ay émissions yoo xamante ne mu ngi ko fa doon def bokk na ci seetu bi doon ci ànd ak ay artistes yu ci mel ni per bu xar ak ki nga xamante ne moom moo di doyen moom Ndiaye nag nekkoon ab artiste complet nekkoon humoriste daal dinay génn adduna nit ki tey. génnub àdduna Ndiaye moomu sax la ñuy des rek gannaaw ba nga xamante ni daal dinay tëdd rek lu yàgg daal di am rek ab feebar ah, bu ko daal di daaneel mën ko lool ah, gannaaw ba nga xamante ni sax moom ah, ci vidéo yi nga xamante ni jot na génn te ñenn ci ay artistes yoo xamante ni mu ngi ànd ak ñoom defoon ko rek di wax sax ne moom mu nga woon ca ab clinique amal fa li nga xamante ne moom moo di opération waaye nag ci loolu ñu bëri rek daal di pointer du doigt le groupe Futur Média ndax kat dañoo jàppoon ne bi nga xamante ni sax kii di njaay dal di nay tëdd feebar dégguñu jëm ci prise en charge bi loolu nag taxoon ba ñëpp daal di mer ba futt lool euh, di pointer du doigt rek ñenn sax ci ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo gànk groupe Futur Média euh, di Youssou Ndour sax ma nga xamante ne moom moo daal di nekk rek ca bopp ba ñu jàpp ne sax ne moom waroon na mën a jóg daal di rek prendre en charge ki nga xamante ne ni moom moo di Abdoulaye njaay ñu gën ko xam ci njaay bu TFM gannaaw kaddu yi nga xamante ni sax askan wi yëpp yëkkati yëkkati nañ ko waaye nag liñ ci sax ñii di artistes yi daal dinañ koy def xam lañ ne rek ne groupe Futurs Médias tooguñu benn yoon ndax kat moom mi nga xamante ni sax moom moo di Ndiaye ah, gannaaw ba mu tëddee ca lalu hôpitalam ah, ñi nga xamante ni sax seet si nañ ko fa daal dina yëkkati ay kàddu rek ah, jébbal leen ko di gërëm bu baax ki nga xamante ne moom mooy patron GFM waaye tamit ñëpp ñoo xamante ni rek ñoom ñooy ay kilifa foofu ci groupe bi ci taxawaay bi nga xamante ni amal nañ ko gannaaw ba nga xamante ni sax moom daal dinay tëdd feebar keneen ku génn àdduna Akon mbër lay wuyoo ni ki tey moom Akon nag daal dina nekkoon rek ab mbër foofa ci école de lutte Balla Gaye moom nag gannaaw ab malaise rek boo xamante ni moom moo ko daal di daaneel ci loolu nag la daal di rek génn àdduna. dañuy daal di des ci génn génnub àdduna ki nga xamante ne moom moo di Ndiaye moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax euh, daal di nañuy joxe information bi rek ni ki euh, tey ci suba euh, ñi nga xamante ni sax ñoom la doon àndal bokk na ci ki nga xamante ne moom moo di per bu xar daal di na yëkkati ay kàddu rek di xamle sax Ndiaye relation yi nga xamante ni amoon nañ ko moom Ndiaye nag daal di nekkoon sax ab artiste humoriste bu complet boo xamante ni daanaka foo ko woo rek foofu la mëne moom nag gannaaw ba ba nga xamante ni kii di père bu xar daal di nay def rek ab vidéo di révéler rek li nga xamante ni sax mooy relation yi mu amoon ak ki nga xamante ne moom moo di Ndiaye muy xamle sax ne rek njaay Ndiaye nekkoon na nit koo xamante ni nit ku baax la daal di nay sax nekk koo xamante ni euh, ku amoon yitte ci nit la waaye tamit fépp foo xamante ni rek mu nga fa kenn du muñ ñëppay reetaan mu bëgg rek lu neex nit loolu yooyu nag di ay kàddu père bu xar waaye nag xaarul dara moom moo di eh, Jabar ju Ndiaye moom nag daal di nay soutenir bu baax a baax eh, jëkkëram ba li nga xamante ni sax noonu la daal di génnee àdduna eh, moom nag Père Boukhar daal di nay yëkkati le kàddu rek daal di koy jébbal askan wi yëpp ngir wane rek relation yi nga xamante ni amoon na ko ak ki nga xamante ni moom moo di Ablaye Ndiaye ñu gën ko xam ci Ndiaye. waaye tamit keneen ku yëkkati ay kàddu rek àddu ci li ni mel muy Kouthia Show moom nag ku wax Kouthia rek sa xel dafay daal di dem ci njaay waaye tamit ku wax njaay sa xel day dem ci Kouthia moom Kouthia nag gannaaw appel ba nga xamante ni rek def na ko foofa ca télévision Futur Média bi Ndiaye génn àdduna rek moom Kouthia daal dina yëkkati ay kàddu yu baax. ci loolu nag moom Kouthia mu nekk ay kàddu yu rafet ay kàddu yu baax daal di koy yëkkati rek def ay seede rek ci ki nga xamante ni sax daal di nañuy ànd ay at yu bëri foofa ca télévision Futur Média muy xamle rek ne Ndiaye dafa nekkoon artiste bu complet lu ne rek daf ko daan def foofu ci télé bi te fu mu wéyee rek nga ne foofu la mënee moom Ndiaye nag daal di nekkoon koo xamante ni nit ku baax la nit ku oyof la loolu nag di ay kàddu yu Kouthia moom mi nga xamante ni sax daanaka bi Ndiaye accès ci télévision Futur Média bokk na ci ñi ko dalal ah, ci émission bi nga xamante ni moom lay amal chaque 18 heures muy Kouthia Show ci leneen la ñuy wax muy coowal Sweet Beauté ak ki nga xamante ni sax euh, moom moo di Ousmane Sonko Adji Sarr euh, loolu nag ngir daal di leeral rek li ni mel kii di doyen des juges Omar Maham Diallo euh, daal dinay wëyal rek li nga xamante ni moom moo di audition ya di déglu rek kenn ko ci nekk rek xoo xamante ni jàpp nañ ne sax ne taqe nga ci mbir mi moom nag gannaaw audition yi nga xamante ni mu ngay wëy di ko amal ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy layool kii di leader Pastef Sonko ñu ngi sàkku rek ngir ñu daal di amal audition ci ki nga xamante ne moom mooy ex capitaine Touré. ci leneen la ñuy wax muy coowal Dubai Porta Potty loolu nag gannaaw ab euh, ndaw sax boo xamante ni daanaka mu ngi def ay révélation rek ci réseaux sociaux yi euh, moom nag ñu jàpp ne sax dafa bokkoon ci li ni mel gannaaw ba mu génnee nag di wax ci li nga xamante ni sax loolu lañ doon dund foofa ca Dubai euh, muy xamle nag ne dañ ko transformé woon rek en objet sexuel loolu nag nekk ay kaddu yoo xamante ni moom mi nga xamante ni sax daal dinay dund li ni na ko bu baax a baax muy xamle sax ne. daal dinay ñàkk rek li nga xamante ne moom moo di respectam ak fiertéem en tant que femme euh, loolu nag bokk na rek ci li nga xamante ni jot na koo dund euh, foofa ca Dubaï te mu nekk ay jëf yu ñaaw docteur Babacar Diop daal dinay publier rek di wane contentement bi nga xamante ni daal dina koy am loolu nag bokk na rek ci ñu daal di koy rek jébbal li nga xamante ni ah, moom moo di trophée bu coupe d' Afrique nations ci loolu nag moom gannaaw ba nga xamante ni sax coupe d' Afrique bi ah, ñu ngi nekk ci ab rek un peu partout le Sénégal ah, di ko présenter rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi moom docteur Babacar Diop nag daal dinay dalal bile trophée ci loolu nag muy exprimer rek. contentement bi nga xam ne am na ko ak fierté bi à travers une publication moom docteur Babacar Diop euh, muy xamle li ni mel ci leneen la ñuy wax muy ki nga xamante ni sax ab féticheur la ñu gën ko xam euh, ci Seydou Seck moom nag gannaaw ba nga xamante ni invité woon nañ leen ci plateau 2STV di confrontation euh, ni ki ñaar fukki fan ak ñaax ci weeru janvier bi ñu génn euh, moom nag daal di nañ koy teg loxo rek ci fàttali nag moom bañ ko invité foofu dafa daal di rek rayoon benn ginaar en direct sur la 2STV ci loolu nag gannaaw source yi nga xamante ni jot nañ ko moom féticheur bi nag. nag ni kiy démb sax daal dinañ koy deferee rek loolu nag ni ko amal moom mooy section de recherche bu li liñ koy toppee bokk na ci charlatanisme ak li nga xamante ni moom moo di escroquerie ci leneen la ñuy wax muy coowal Adja Diallo ku ne xam na ne ni nag jamono ji euh, lëmbe woon réseaux sociaux yi bu baax a baax gannaaw ba nga xamante ni sax euh, moom ma Adja Diallo daal dinay pointé du doigt rek la société sénégalaise euh, moom nag mu daal di joxoñ leen baaraamu tuuma rek ne dépression yi nga xamante ni moom moo ko dab jamono ji kenn tegu ko ko ku dul société sénégalaise bi ci loolu nag ki nga xamante ne moom moo di Alima Gadje di ab artiste rek mu mel ni sax kuy jël défense bu Adja Diallo euh, moom Alima nag daal dina yëkkati rek ay kaddu euh, jëmmal ko rek ci ñi nga xamante ni daanaka ñu ngi rek euh, yëkkati ay kaddu di ko teg ci deru Adja Diallo moom nag muy wax naan leen laisser cette femme vivre en paix moom nag muy yëkkati les kaddu mel ni rek kuy défendre ki nga xamante ne moom moo di Adja Diallo. kii di Diab Sora la ñuy waxtaanee moom sax ñu bëri jàpp ne rek borom ñaari tur la ba ci loolu sax daanaka ñu ngi koy gis jamono ji mu lëmbee réseaux sociaux yi ak vidéo yi nga xamante ni mu ngi koy amal waaye nag récemment dafa daal di def rek ab vidéo di dal ci influenceur bi di Adamo moom nag amul lu mu yàkkul ki nga xamante ne moom moo di Adamo yëkkati ay kàddu yu ñaaw rek daal di koy tek ci deram di attaqué Adamo mu mel ni sax ñoom ñaar jamono ji dañoo am problème ba nga xamante ni sax kii di Diaba Soxna dafa daal di yëkkati rek ay kàddu yi ñaaw di ko teg rek ci deexu Adamo waaye ci Diaba Soxna moom sax la ñuy des rek jamono ji seenoon nañ ab vidéo euh, daal di euh, fuité rek ci euh, li nga xamante ne moom moo di réseaux sociaux yi mu defoon di ba nga da doon tuub ko a duppee ci kanamu ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mara Niass di ko nettali rek ay fee yoo xamante ni yu doy waar la yoo xamante ni daal dafay tëdd rek gént ko waaye nag ci loolu ñu bëri daal di génn rek ci réseaux sociaux yi mel ni rek kuy attaqué Serigne Mara Niass jàpp ne sax dafay promouvoir rek li nga xamante ni sax moom Mara Niass xaarul dara rek ngir génn di wane ne moom ab taalibe Serigne Saliou la kon nag am na yu ñaaw am na yu ñàkk fayda yoo xamante ni a xaju ci waaye nag gannaaw ba nga xamante ni sax moom jàpp sora ñu bëri jàpp nañ ne borom ñaari tur la moom Serigne Mara ba mu génnee mu ngi fësal rek ay kàddoom di leen xamle ne ne du borom ñaari turi euh, te fii ak fan yu néew dina génn daal di leeral li ni gannaaw ba nga xamante ni sax daal dinay amal ab live rek ak ki nga xamante ni moom moo di jàbba soora ba mu koy nettali sax ay gént yoo xamante ni gént na ko ba moom Serigne Mara sax mu pare rek ngir dimbali ko ci li ni mel. mbokk yi safoon doon ñu teewlu ci seen chaîne Allô Sénégal lii lañ leen andiloon seen xibaaru bés bi di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bi a raté dara ci suñu information jërë ngeen jëf.